bu mag di ziar bu baax Serigne Abo Mbacke ibnu Serigne Fallou ziar nañ ko Serigne Mbaye Sy Mansour ca Tivaouane ñu koy ziar Serif Ibrahima Aïdara Tidiane nuyu nañ ko suñu papa nag Alaaji Seydou sopp Serigne Fallou nekk ca zone B ñu koy ziar ziar bu wër Mamou Sougou Wadane di nekk foofu ca Wadane ziar nañ ko waaye di nuyu tamit Abdou Karim Mangane président Soleil international sama xarit ak ñaari soxnam Sadio ak Fatima nuyu na tamit cardinal Théodore Adrien Sarr bu baax di féddali kóllëre sama diggante ak moom waaye di nuyu tamit maître Fatima Fall responsable politique ca PDS ca Ndar yaa Ina Diallo ca Banjul ma koy nuyu bu baax di ci am mbégte contentement waaye Serigne Babacar Kayre bu xalifu Alaaji Nguuda Kayre waliyu yàlla ba ne ca àjjana ziar nañ ko ah, di nuyu tamit bu baax Alaaji Bassirou Touré ca ca Daaru Daaru Ridwan ñoom ñëpp nag Serigne Bassirou Ndaw xalifu Daaru Salaam ziar nañ ko di nuyu tamit Pedro nekk ca Espagne dëkk bu ñaan Grenada xaritu Mass Lom da ñoom rek ñu koy nuy waaye tamit di am mbégte contentement ci Julie et toutes les gendarmes qui ont été au Congo euh, di représenter Sénégal foofu gendarme Pélage Nadiak nuyu naa ko Abi Kanté Chéri Baye Diawara de la part de Julie un grand clin d'œil à toutes les braves femmes gendarmes du Sénégal de la part de El Hadj Abdoulaye moo leen di nuyu soxna Daba Mbacke bu Serigne Khadim Mbacke wàllu yàlla ba dem nelaw yàlla ko yàlla xare àjjana moom soxna Daba Mbacke nuyu nañ ko de la part de Massamba du ñu tamit Baye Cissé borom Kéemtaan borom Kéemaan nekk foofu ci cité Soprim ku yàlla baaxal la di grand chef religieux dëkk ca Soprim nag ñu koy ziar ziar bu wér Baye Cissé borom Kéemtaan di sama xarit yàlla ko yàlla defal jàmm ci li nga xam ne moom lay def ci Sénégal ak àdduna bi yëpp ñu ko nu koy nuyu tamit monsieur Baba Diaw itok bu euh, nekk Almadi foofu ak njabootam Pape Cheikh Diallo et sa famille foofu ca euh, Almadi nuyu nañ ko bu baax di ci am mbégte contentement mbokk yi nag li ñuy def moom mooy delluwaat di gërëm képp koo xam ne moom mu ngi foofu ca diaspora ba suñu tata di tata Thiané euh, de Paris di ko wax nag suñu yób yóbbanteem jot nañ ko di nuyu tamit madame Sarr Lissoune Fall ca Nord Foire Fatou Seck ca Paris 18e ñoom ñëpp am nañ mbégte tonton mag jur dafa métti te kii nga xam ne mooy tata Viviane Wade moom mooy yaayu Euh, Karim Wade démb nag demoon na ca procès ba ba mu fa génnee bi monsieur le sur waxee moom moo wax ñu dem seeti ko euh, mu dem euh, ca buntu fi nga xam ne moom mooy tribunal ba indi fa ay seedem mon chauffeur pour mes lunettes s'il vous plaît tu me donnes les lunettes donne-moi les lunettes s'il vous plaît parce que je vois mes cadres de parler <laughs> parce que voilà avant di wax ci ci yi uh-huh. maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp lii moom liggéey yu neex rek moo ko mën ku sa ndey liggéeyul doo am lii ni Thione Seck ak Wally Seck di feesal les grands théâtres ak ñoom Pape Diouf noonu la Karim tojee palais de justice fees dell bay tuuru am buzz ku sa ndey liggéeyul doo am lii waaye kenn ñaanu sa doom ñu koy layel man nag dafa am loo xam ni dama koy wax sénégalais yi ñu bàyyi ci xel lii ma gis nii lii ma gis nii li muy xëy neexul parce que tappale ak njuuj njaaj mu ngi ci biir waaw parce que ñun tey sax bu ñu demee ba dégg olof Macky Sall moo tax ñu xamal ko ne pare nañ pour defante ko ak moom ba mu saf sàpp j'ai dit dañu ko defante moom ba mu saf sàpp te moom du ci mën dara parce que bëkkate bëkkate daaro mbay ñëpp xam nañu ba kenn du ko werante sama doom maa ko jox Demba Karim boo ko gisee ni mu dugg si macha allah jekk ak ak njoolay bi ak ni mu nekkee en forme nga xam ne ne kii xelam dal na dama ne dama ne ku am sa ñu ne ko ràpp ci kaso bi du la neex papam mënuloo ñëw Demba parce que xamoon naa du ñëw parce que papam bu ñëwoon Demba palais bi palais justice dina xaar ñaax te bu xaaree ñaax adduna bi dina yëngu ndax xam na ne du nangu doomam ñu koy toroxal Demba laa kontaan sama doom Demba laa xam sama doom jàmbaar la bi ko magistrat bi wooyee ne ko eh s'il vous plaît monsieur Karim ñëwal nga wax noo tudd ak foo dëkk mu taxaw ne ko wax nga sama tur ba pare Karim laa tudd <laughs> kooku doom bu am jom moo koy wax ñu ne ko leen looy liggéey mu ne banquier et détenu politique salle bi toj fépp foo sànni mbaat mu tal Karim président jolle ci biir salle bi dama ne dama ne démb ku gis tribunal xam ne magistrat bi dafa perturbé parce que français i commencement bi neex na mais dañ dem ba ci dëgg bi mu caan te Karim day perturbé dama ne Wade Ndiak Farah Wade ba ci yëngu xeex dama kontaan moo tax ma woo sama ñaari tamakat yi ne leen tey dama bëgg ñu bàkk Karim ba kër bàyyam ca point E parce que tey Karim moo am ndam dama ne procès bi du procès bu ndaw li ma bëgg mooy jigéenu Sénégal ngeen xam ne tey taxaw naa temb pour defante ko Macky Sall ba mu sa sapp jeudi te kon que Marème Faye def ci dugg dinaa ko ci boole ba mu saf sàpp moom tamit jeudi parce que fii la Madick ay taxaw wax ne moom moo tax ñu fal ko kon comme que da ci dugal am ci politique léegi man dama koy defanteeg moom ba mu saf sàpp jeudi te du ma bàyyi Karim kenn du ko kekanto ay ca dañuy dañuy dem ba buntu kër Marème Faye mu xam ne may leen ma may leen ma may leen ma tuuti may leen ma eh sobu leen lii dañuy waxati sobu leen kan moo le kaay ma wax la xam ga nu ñuy def dañuy dem ba ci point E ma xamal ne Ablaye Wade tey dawul dellul ginnaaw Ablaye jàmbaar la te il faut mu xam ne tey li mu ñëwul foofu dafa gën a tax mbir mi am daal parce que bu ñëwoon dinañ dégg ñetti yoon lu ñu musul dégg Karim président Abdoulaye président madame Viviane présidente moo tax ma ne Karim liggéeyu ndey tu as bien travaillé tu mérites ça il faut faire c'est pas c'est pas c'est ce que vous êtes des Africains ñun tamit il faut ngeen mettre tout Karim tu as bien travaillé tu mérites ça Karim Karim il a bien travaillé il mérite ça Karim Karim il a bien travaillé il mérite ça Karim attendez de ci olof la dafa ne santi naa ko gërëm naa ko ndax sagal na yaayam démba ñëpp ñoo ko tekk ñëpp di ko tàccu naan wu président dama ne xale bu dégg président ci liggéeyu ndeyam la te man sama ndey daf ma liggéeyal ndax xam ngeen ne man ku ma jox mooy Bernadette Bernadette ku ko jox Sophie Sophie ku ko jox Agnès Agnès ku ko jox Inès Inès Florence Florence ku ko jox ku ko jox Barboline Barboline moo nan po jox Parasiya parce que Siya nan po jox Hélène Hélène nan po jox Martini Martini Marcel Marcel ku ko jox moom mooy Jean-Pierre Jean-Pierre de Jeannot Jeannot de Martin Martin de Justin Justin de Justine dama ne am kër ndey am kër baay moom baamam yi nga xam ne ñooy maamu tubaabam amul ku si mu sa dawal métro ñoom ñëpp dañuy dawal avion war a ñu nekk ci atu buur war a di wax ak buur waaye du ñu wax ak badolo kon Karim buur la ku nekk ma ne kon Karim buur la Karim Wade buur la oui Karim eh Karim buur la Karim Wade buur la buur ci ndey buur ci baay Karim buur la i Karim buur la baayu Karim buur la yaayu Karim buur la ยาย